يدفع به عن البلاء ثم على من حيث مستثمرت يبرأ بلا برج وفاز بالخلاء محمد طبيبنا الحكيم أزكى defe naa baat bi gën a am solo mooy bi sëñ Saliou Ndiour wax def na bilan bi wax ni def nañ à peu près vingt ci dugub ci trois daara daara bu nekk am euh, trois tool donc suñ defee total bi c'est à peu près vingt kilomètres carrés dugub te ci lu mel noonu moo am ci gerte xam nga gerte moom euh, ngóob bi moom euh, maîtriser nañ ko ndax ay machine a koy def waaye dugub gi léegi eh, ay loxo moo koy def te sëñ bi ndimbal la ci bëggaloon suñu mbokk taali bi beneen eh, kéemtaan bi mooy eh, sëñ Cheikh Saliou atam mu njëkk ñeenti fan lañ fi def at mi ci tot ñetti fan ren jii xam nga dimanche lañ defoon bilan bi te tey jii ñu ngi samedi def nañ ko ci ñaari fan loolu mooy wane ni en lépp luy mobilisation am na ndax Euh, li ñu estimé woon ci ay oto yoo xam ni ci wàllu Cheikh Amar moom la ñu mobilisé woon mooy dix mille personnes te suñu xoolee am na ñeneen ay ñoo xam ne ñoom it dañu ñëw seen kàttanu bopp am ñeneen ñoo xam ni seen i camion lañ ñëw def dugal ci ak ñeneen taalibe te ñoo ñëpp kenn xamantewu ci ak Cheikh ngir sëñ bi moo tax mu ñëw def ko kon suñu mobiliser minimum lu ëpp dix mille personnes ñëw nañ ci vingt kilomètres carrés dugub liggéey bi jeex na ci. ñaari fan yu matu at mu njëkk ji ñeenti fan bi ci topp ñetti fan ren ñu ngi ci ñaari fan ci wàllu moyen aussi euh, ni ko sëñ bi waxee Cheikh Amar du ko wax ñun ni ko jege it xamuñu ko waaye sëñ bi moo ko waxal boppam mu ni euh, moyens yi chaque année day yokk ren dafa juble ci li mu génn ci ay moyens te nit ñi sax am na lu ñu yaakaaroon ndax ay jafe-jafe yu ñu yaakaaroon mooy am ci liggéeyam ci ay ñàkk marché yoo xam ne amoon na fi te amu ko waaye loolu taxul ren ji maanaam dafa doublé li nga xam ne moom la mënoon def donc daaw xam nga dañu estimé woon dix mille ren nag mënaguñ ko wax ndax euh, kilifa gi waxu ko daaw dafa estimé woon am nañ dix mille tonnes ñeenteelu fànn bi nga xam ne moo am solo mooy fan nañ ko jëmee li nga xam ne moom la sëñ bi récolté loolu it sëñ Saliou Ndiour wax na ko nee na ci ay daara la jëm ak i jàkk ba Dakar donc fu nécessité am amul benn pepp boo xam ci moom la jëm kon képp koo xam ni danga nga ci liggéey mu jëm ci ay nécessité mu dem ci ay daara kon liggéey boobu moo tax ñëpp ñëw jàpp ci kooku mooy volet social bi nga xam moom la ñu wax muy volet zaahir bi baatin bi nag ñun mënuñu koo wax ndax am nañu ko yàgg di wax baatinu xel ko mais zaahir bi daal moom lañu mën a wax

alhamdulilahi rabil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Cheikh Ablaye Camara moom Serigne Saliou maa ngi nekk ak sëñ Xaadim Tine moom Cheikh Gora Tine ci Mbàkke mi ngi ànd ak jëwrin Aatu Badiane ci wàllu liggéey wi ñu sëriñ bi fàggul mu liggéey yu tey ak suba muy xel koom gi ci wàllu ngóob bi dajale ko Euh, sëriñ bi bu loolu jàllee li nga xam ne moom mooy liggéey bi nga xam ne moom la ko tedd ki santaan tey muy euh, sëriñ Touba euh, sëriñ seex Mbacke saaliw lii lan lay fàttali ak jamono sëriñ Saliou tey foofu boo ñu ci mënee indil beneen leeral boo xam ne temps sëriñ Saliou ak jamono sëriñ seex bi tey nan nga ko dundee. waaw dafa yokku ndax ku xam sëriñ Saliou ku ne daana wax moom sëriñ Saliou de kenn képp ko yaam yiir ko jaaxal ko. mooy ku dégg ndigalu xelkom te tegu fi tànkam sëñ na bi mu ñëwee dafa yokk ndax murit amul lu dul ndigal sëriñ Touba ñett la mujjoon tegtaloo ni moom mooy màndarga gi ñuy xàmmee murit saadix mooy ki ko liggéeyal ki ko bëgg ak ki ko jox àddiya àddiya bay mujj kon nag liggéey bu taxawee mu mel ni gis nga tey doomu aadama yi taalibe murit yi ñépp a ñëw wuy si woote bu sëñ Cheikh bi mi ngi ñuy fàttali bi ñuy tàmbali tool yi rek 1991 ni fi ab àll la woon waaw lii jëf la Serigne Touba li maam Cheikh Naim Fall waxoon rek duñ fi fay mukk wax baay jëf. ñu dugaat fi nga xam ne fi nga nekkoon sànq mooy 91 euh, 91 euh, ak léegi euh, ban xel koom boo xam ne nii li la gën a marqué ci xelkom yi boo xam ne mën nga koo fàttali. waaw boobu boobu 92 la 92 ñëw naa fi sëriñ bi wooluñu ci Touba ndax jamono jooju ndox daf fi doon manqué sëriñ bi jox luñu waa ministère hydraulique jox ñu ñaari camion euh, boobu ci ban kii la nekkoon euh, ci ban gouvernement la tombaloon. Abdou Diouf gouvernement Abdou Diouf la woon biñ ñëwee dama réeroo woon ak beneen camion bi wut naa ko bisu lëmm gisuma ko yore oto mu yor oto kon loolu xam nga tey ak tey jii boo koy wax day doon taarix bu yaatu. boo xam ni boo yegg see réeroog nit bisub lëmm ndax maag benn camion bee ñëwoon beneen bi jotoon ngiro ñun bi ñuy dellu si fekk nañu ngiro bi dañ ba moom mu ñuy wut waaw loolu pas-pas bii tey ku fekkee woon bis boobu da nga xam ni Serigne Touba amul tànku ginnaaw tànku kanam rek la am. lan ngay wax ci ñi nga xam ne yaakaaroon nañ ne ku tedd ki Serigne Touba seex Saliou euh, suufi fi bàyyi ko wàññu ginnaaw euh, euh, tool yi nga xam ne moo di xel xelkom dafay fay ñu lan nga ban message nga am boo xam da koy jàllale. ñooñu dañoo ñàkk dégg sëriñ Touba sëriñ bi bàyyiwu fi jumaa ji sëñ Modou Moussa ko fi def <laughs> dégguñu sëriñ Touba sëriñ bi nee na sama tey bu nekk day gàcceel démb ku fi toog ku nekk di sëriñ Touba mooy sëriñ Touba xel comme dana dem ba day fooxal lii loolee ñuy wax li fooxa mat la bii dana dem ba fooxal lii. Euh, kàddu gi nga xam ne moom moo war na bàyyi ko ci sëriñ bi nga xam ne mooy euh, sëriñ Xaadim Tine ibnu sëriñ Goro mu sëriñ Saliou kenn ku nekk euh, su ko xamul tim dégg nga ko euh, kon ki nga xam ne moom la jox kàddoom mooy euh, sëriñ Ato Badiane sëriñ bi ginnaaw bi ñu la nuyoo ñu ngi lay siyaare waaw jërë ngeen jëf nun ñëpp xanaa kay li gën ci nun ñu dellu santaat yàlla santaat sëriñ tubaa xam ne sant rek moo fi des ndax ginnaaw sëriñ bi lu mel ni xel koom nga ko mën a liggéeyee li ni ko sëriñ Ablaye waxee nu ànd koog moom ak sëriñ Xaadim Tine te lépp di baatinub sëriñ Saaliwu bu nu fi dajee ci tool yi rek ku fi daje war ngaa xam ne am nga ndimbal ndimbal nag ak bëgg sëriñ Touba di su ko fàggul kenn du ko fàggul sa bopp sëriñ bee la koy fàggul kon bu sëriñ bu wootee lu toll ni xel koom te xel koom ku fi ñëw boo amee pas-pasub tool yi sunu borom seetal say bàmmeel loolu kenn ku ne war na cee bàyyi xel. mu mel ni kon bu nu ànd ak sëriñ xaadim tin im nu sëriñ góoratin mu sëriñ saaliwu te xam ni lépp di jàppandi ba nu ko dalee commencé bi fi sëriñ bi nekkee ba ni fi bawoo sëriñ seex nekk fi tool yu sëriñ seex ma sa woote ñoo ko bokk liggéeyu dugub ji ñu fiy jëlee tey jii muy pepp mii fii ñore bu ko sëriñ bi joxee da koy yëkkati ab lim jox ko sëñ xaadim mu ànd ak taalib yi ñu taxaw ko def ko ay baraay delloo ko ci daayira yi delloo ko ci ci daara ji waaye damay wax ni murit yi nañu bàyyi xel ci ne xel koom ci comme cere nu bàyyi xel ci ne xel koom gii nun mucc ñu ci dagg dugub ji waaye mucc ñu ci defar baraay bi te loola diggante la boo xam ne bi dugub bi taxawee ànd ak mbokkam lu baree ngi ci woon waaye ba ñu tàqalikoo lañ ko mën a jariñoo kon bu nu sëriñ bi woonoo ànd ak sëriñ xaadim tin ibnu sëriñ góora tin teew fii ci tool yi nun ñëpp ñu daje fi te li fi daje ci murit daje fi ci ay jëwriñ daje fi ay seexi sëriñ Touba ñëpp koo fi gis ku ne bëgg rek ku fi indi akuk fàggu li ma wax gaa yi ni nañ jàppale ñëpp te yërëm leen ndax bëgg gi daa jiitu xam gi kon mel na ni lépp mun tamaase waaye sëriñ bi bu nu dimbalee muy sëriñ Saliou Mbacké mu fàkk tool yu mel nii ku toll ni sëriñ Abdoulaye di doomi sëriñ Touba bi mu doonee xalifa du Diouf nii ñu ko waxee léegi mu doon président Sëñ Blaat dawal na otoom ba xel koom damm fi ak xel koom damaa bëgg ëllëg mu seede ma ni man Sëñ Blaat ñëwoon naa fi ba damm fi ak ngeer kon ku fi teew ku ne te Serigne Touba indi la fi nanga bàyyi xel ci ni bu nu fi jëkkanteeb añ bu nu fi jëkkanteem ndox bu nu fi jëkkante lenn lu dul fas yéenee defal sëñ bi li mu bëgg ndax añ bi du tey ëllëg la te sëriñ bi am nag pay ñimewul bor kon sëriñ bi ànd gi nu ànd ak moom danoo bëgg a dimbali képp moo tax mu fàkk tool yu toll nii woonu ni ko sëñ Ablaye waxee léegi nag mayu ko kenn du jaamu yàlla gudduuf ba tax nga man nga am li nga bëgg du woor du lenn liggéeyal waaju baax rek a mën a dindi yenn bakkaar yi te kon loolu lépp ku ne xam ne ne ku tàbbi xel kom suñu borom tàqale na ko ak kon jërë ngeen jëf. waaw maanaam lan ngay daggee taalu yi nga xam ne dañoo bàyyi seen lépp ak seen fépp ñëw fii ci dëkk bu sell bi nga xam ne mooy xelkom ndax xelkom dëkk na benn dëkk boo xam ne nii comme niñ koy waxee ci wàllu aj màkka suñu àggee foofu ki nga xam ne mooy baadoola bi ak fonctionnaire bi ñëpp ñoo bokk lu ñuy def fii yaakaar naa lu nekk gars yi gis nañ ko ñëpp ci ay xayma la ñuy fanaan boo ko nekk ci poseer bi kon euh, sëriñ bi yow ban yëg-yëg nga am bi nga duggee fii ci tool bi di Touba Xelkom. auzu billahi min shaytaan rajim bismillahi maa ngi leen di baalu bu baax tey tuubalaat suñu borom bu baax a baax te di santati bu baax yëg-yëg bi ñu am nii maanaam xare badar la ñu ñun ba yónnent bi di di xare jàmbaar ya àndoon ak moom ñun ci toolub xelkom bi moom la ñu yëg ñun muri di waaye nag sëriñ tubaa de ku ko jox sag ndaw mu téel la sag mag te ndaw ñii la sëriñ tubaa soxla waaye nag dalum xel mënut a weesu dund juróom fukki at ak lu topp mbaa juróom benn fukki at def li la neex ci jamono maanaam li may bañ a tudd muy fo ne damay dund juróom dund naa juróom fukki at yoo xam lu ma neex def naa ko li ci des dama ko jox sëriñ tubaa waaw loolu la wax ne da nga dundaat fukki at kon tee ñoo suñu ndaw bañ ci toll nañ jël suñu lépp jox Serigne Touba Serigne Touba ku ko jox sax ndaw mu teel sax mag te boo nee a dina la déglu nga ne moom rek mu ni tekk déglu la nga waaxu wuti ko Serigne Touba jóg di la déglu soo dawee nag mu gàttandul la boppam yëkkati la ba àddina sépp seen la mooy seex yi ko topp dañu nekkam yow a yow rek Serigne Touba yëkkati leen jombut kenn ci yéen ñi di ndaw nag ku dëggal te topp Serigne la nga bëgg da nga ko am nañu dëggal te wéral rek jamono ji ñu nekk amu fi tey tax a dem ku ragal doo dem dama ne ku ragal doo dem waaye nag yéen de yéen de na ngeen jàpp ne liggéeyal ngeen Serigne Saliou bu wér ndax fi ñu toll nii ci jamono sëriñ Saliou li war ci jamono def na ko def na ko ci ndaw ñi def na ko ci mag ñim jamonoonte ak ñëpp def na ko ci kon nag day mel ne ginnaaw sëriñ bi ñibbi naa jëna ba ba ba fi murit yi ñu waroon koo liggéeyal am yëg-yëg bu ñu war a yëg kon nañu jàpp ne ku doon wax ne bu sëriñ bu ma fekkoon jamonoy sëriñ Saliou dinaa ko liggéeyal sëriñ Cheikh mi woote moom it nga tëdd sa kër naan su ma fekkoon jamonoy sëriñ Saliou te sëriñ Cheikh woote dangay ngay nax sa bopp. fi ñu toll nii jamono ji ñu toll liggéey sëriñ Saliou bi gën a wóor mooy xel ko mu wóor la ñaqal nga sëriñ Saliou leneen lu mu doon wax naa ko sëñ Ablaye miit taxaw nee naa ko cant yeeg lépp. ak cant rek la noos dong daanaka moom la hmm. bu weesoo ñaan yi ñuy ñaanal sëriñ bi la ci lépp àddina dong la waaye lii ak cere yi nga xam ne dafa jom ci daara yi mooy liggéey bu wér wéer boo xam ne wóor na la ñaqal nga Serigne Saliou kon nag dama leen di soññ ni may soññee sama bopp jiital sama bopp jaa ngeen jëf gàcce ngalaama yéen ñëpp murit yëpp la ñu ciy dolli mooy cere yi nga xam ne dafa jom ci daara yi muy muy dundab dongo yi muy tey lii ñu liggéey dañuy dem ca kalam sëriñ bi dana joxewaat ndigal ñu def ko muy dundab dongo yi waaye waaye képp ku ko dégg loo man def ci liggéey la bu wér bu kenn tànqamlu ku ko yëg rek demal boo mënee defal jëlal def soo mënu jëlal saw ñax def ca sëriñ Saali walay fayal boppam euh, kon nag jërë ngeen jëf euh, tey nag ñu ngi fii ci dal bi nga xam ne mooy dal bi nga xam ne naan Touba Baxdaad euh, Touba Baxdaad nag bi ñu dikkee ñu ngi fekk mbooloo mu bëri góor yàlla yi ñoom ñeen ñenn ñu ngi ci wàllu xéewal yi tey bi ñu duggee foofu ci biir waañ bi ñu fekk ki nga xam ne mooy euh, madame Ndiaye ñu gën koo xam madame Ndiaye mu Serigne Saliou soxna Mame Fatou Diop mu Serigne Saliou ci ko ku ko gis wala nga dégg ko yaa fekk li xam ne mooy en tant que taalibe Serigne Saliou ci biir waañ bi euh, soxna si ñu ñu ngi bi euh, ginnaaw bi loolu jàllee ñu ngi lay siyaar di la laaj sa teewaay fii ci Touba Xelkom gannaaw bañ sante yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant suñu sëñ bi sëñ Saliou yàlla nañ ko yàlla fayal moom mi nga xamante ni lii lépp moom la tey nag sëñ Saliou wootee moom kenn ku ne da ngay jóg ñi bokkul ci moom rawatina nag ñun ñi nga xam ni dañoo seey ci moom ndax ñun bëgguñu ku du sëñ Saliou wutuñu ku du sëñ Saliou moo tax ñun amuñu lu du sëñ Saliou su wootee ñun ñëpp dañu ñëw fii nag mooy dalu sëñ Abdoulaat Mbacke moom sëñ Modou moom sëñ Abdou Khader Mbacke moom sëñ Khadimu Rasoul moom moo moom dal bi moo tax ñu tuddee ko Touba Bagdad at bu ne nag sama càmmiñ la ñun fii la ñuy ñëw dal si jàppale ci togg yeeg waañ yi nekk ci waañ bi ñun ak taalibe yeeg ñun ñëpp daal fas yéene rek liggéey sëñ Saliou rek comme mënuñoo dem ci tool yi daal ñu fareewu xéewal yi di koy togg di jox eh, ñi ñëw dem ci tool yi pour ñu xéewalu waaw xel kom nag at bu ne noonu lay demee rek liggéey rek waaw ñun murit lañu amuñu lu dul sëñ Saliou kon su wootee xel xelkom sëñ Cheikh woote ñun ñëpp dañ koo war a wuy si ñi ngi sant ñi fi teew ñëpp ci kaw ba ca suuf te di wax ne lu fi waaye ñaq rek lu ne sëñ Saliou lay fay te ku sëñ Saliou fay moom doo fanaan buti yàlla nañ ko yàlla fayal te jannatu firdaw si yamu nekk ginnaaw bu loolu jàllee ku ne madame Ndiaye mu Serigne Saliou Euh, lan mooy gën li nga xam ne gën a marqué boo toogee si bureau bi wala nga nekk ci dispensaire bi wala nga nekk ci mission ba dégg ñu ne euh, ku tedd ki santaan na tollu Xelcom boobaa lan nga yëg. li ma yëg mooy war koo liggéey li ji rek waaw ndax ñun moom hôpital Matlaboul Fawzeyni ba ñu ne liggéey sëñ Saliou ndax sëñ Saliou woo ñu fa yóbbu moo ñu fa teg waaw kon ñun su wootee feneen sax moom waxaloon na ko boppam nee na hôpital Matlaboul Fawzeyni jumaa ji ak xel ko ma yem fay waaye ñun dañ dul yem hôpital ndax dañuy jël suñu lañ jàng ci docteur teg ko fële nekkub taalibe ndaxte moom la ñuy nekk ndaxte taalibe rek a wóor bu ñu ñëwee fii nag dañuy liggéey rek ba keroog sëñ bi di ñaanalaate ñu wa ñëpp daal di àndandoo ñibbi kon bu sëñ Saliou wootee daal damaa yaakaar ne amul docteur amul kenn ñëpp war a wujji te ñun faaw ñun dañuy wujji bu sëñ Saliou wootee at bu ne nag ñu di ko def te di ñaan yàlla muy gën di yokk ci kanam yàlla may ñu wër buñ koy defee ak mën-mën a kattan goo xam ne at bu ne rek dañuy ñëw wàcc suñu ñàkk ci xelkom waaw dal bi de moom mooy dalu sëñ Abdoulaat moom sëñ Moon Mbàkke moom sëñ Abdou Khadir sëñ Abdou Khadir moom sëñ Touba mi aju ci kilifatu sëñ Cheikh Abdou mi nga xam ne tey mooy sëñ Abdou Khadir ñu di ko ñaanal bu mooy sëñ Modou ñu di ko ñaanal bu baax yàlla yokk ko guddal aw fanam ndax fa mag ñi njëkk ñi tegoon tànkam rek la ko teg mooy liggéey sëñ Tuubaa bañ ko booleeg dara sëñ Abdoulaye nag moom bu ndigalee xasee jóge ci sëñ Cheikh lay jóge mu jaar ci sëñ Cheikh Abdou jaar ci sëñ Mourtala mu jaar ci dongo yi ñu jaafe ko fii ak amuñu jaajëfi dongo yi suñ lépp mooy jaajëfi sëñ bi mooy ñu fexee rek ba am ni ko sëñ bi bëggee sëñ Abdoulaye it koo xam ne ki sëñ Saliou woo ko yoroon jàngal ko defal ko lépp ba tey liggéey bi sañ Cheikh di ko def mu di ko liggéeyal sëñ Saliou murit liñ ci waxoon rek murit moom bu amee at moo xam ne si amul ndigal loo xam si da cee war a ñàkkal sëñ Touba mi ngi mel ne portable boo xam ne amul réseau rek portable bu amul réseau doo mën a woote waaye boo amee réseau ci abonné wu itam du sotti boo abonné itam ci amoo crédit doo sotti kon murit biy jëfi ndigal mooy koo xam ne ki lépp da dañu ci moom kon ñu jox leen mbokki taalibe ñu leeral la lépp. ginnaaw bi ñu nuyoo mbokk yëpp te di leen jaajëfal bu baax. Euh, tur bi moom am ndongal xeeb rek li ñuy wax jiile ja di ndongal sëriñ bi euh, dal bi it ñi fi nekk ñëpp nga di gis ginnaaw sëriñ Touba sëriñ Abdoulaye moo sëriñ Mourou Mbacke lañ yaakaar mooy li nekk ci moom moo ko ci def àll bi ñu taxaw ñun xëy na meenuñu ko waaye moom miin na ko ndax bokk na ci dong yi xam ne naa war caractère li fi nekk ñu di fi def ba sëriñ Saliou jóge fi sëriñ Cheikh doyloo gu ko doyloo am fu ko di ko boole ci ñi mi mu dee ñu nekk ci wet muy lii ñuy tuddee waañ yi di wërmbal bi lépp lu fi nuru xeetu xéwal goo xam ne doomu aadama day ñëw di ko xéwloo ak lu mën a doon loolu da ko teg ci loxo daayira bi nga xam ne mooy daayira salaawal xaali wa xusnul xaatima te sëñ Ibrahima jiite ko muy daayira sëñ Modou Khadir loolu nag dañ sant yàlla bu baax ndax ndimbal la ñu bëggal ndimbal li nag mooy liggéey bi sëñ Tuubaa képp ku la woo daa bëgg nga jëriñu ginnaaw bu loolu jàlle kenn ku nekk xam ne ne jamono yi ñu nekk actualité yi bëri na ba ci tey jii ñu nekk ni rek kenn ku nekk xam na gis na la xew ak li gis fi lenn ci li nga xam ne ay mbokk tailleur lañ ñoom ñëpp dañoo bàyyi li nga xam mooy événement yi euh, bi nga xamante ne dégg nga ñu ne euh, ku tedd ki joxe na ndigal pour Khelcom ban yëg-yëg nga am yëg-yëg bu kawe njort boo xam ne la ma daan am ci jamono Serigne Saliou dama ci a kawe wax naa ko bi ñu ñëwee xoolee sot doo bële def ndox ne wa fustu bil xaamusi fil xaamusi mooy sama tey ju nekk day gàccal sama démb Khelcom ñu ba dañoo jàppoon bu fi Serigne Saliou jógee liggéey bi dafay yam waaye Sëriñ Tuubaa mbiram du loolu mooy léppam continuité la mooy kii day ñëw yam fa yam wàggale suñu sër yu baaxoon na loolu waaye jamono amul lee sat doo ndox buy gaare saa yooyu soxlaa ndox bëgg a sangu-sangu bëgg naan naan bëgg jàngu-jàngu loolu Sëriñ Seex seelu ci la loolu nag du namul Sëriñ Seex liggéey bi Sëriñ Tuubaa la boo xam ne suñu borom dog ko fay loolu la moo tax ñun taalibe dañoo war a góorgóorlu ci loola te xam ne njariñ li mi ci ñaq gi la suñ suñ suñ maam wax nañ xaar ba ëllëg jot ñu fay wax bàyyi jëf kon li fi mooy jëf moo xam mbokki téere yi nga fi gis yëpp ñëpp ci yam koo fa gis bu nekk dafa man mi wax ak yow daal alxuraan laa fa bàyyi te kenn na ko def di sik saak wax nangu nañ ko nangu ba liggéey suñu liggéey suñu tubaab moom amut lu ñuy delloo saa yoo yore saa sa marchandise mu lamb jaaxal la marché boo ko war a jaayee boole ko ak marchandise suñu borom jënd ko min ustaral baaxi mabi an maa kasat walay sa yan xooxu saxaaw nakmat suñ tubaa nee na sama marchandise ba ma koy jaay suñu borom da koo jënd te xaarut ba lamb mu di ko jënd ma jënd naa kon nag loolu moo am ñëpp dañoo bàyyi seen liggéey ngir dim suñu tubaa tax te loolu mooy li ni a jëriñ tey ak ëllëg ci la suñu xeet ah, euh, damay xaar ba def lii doog a dem ñooñu ak ñàkk xel la wala lan nga ko mën a jàppe yow waaw damay jàpp ne ab taalibe moom warutu moom boppam ab taalibe warutu am xalaat ab taalibe warutu am bëgg-bëgg warutu am suñ suñ bi dafa waxoon ne a ak ju a doon saa yu ndigal jógee bàyyi loolu dem ci ndigal ndax loolu mooy la war ndax saa yoo jébbaloo jébbali sa bopp ëtt nag mu war sa bopp misaal mooy tabaski gi ñu kenn ku nekk ci ñun ñaari gétt ak ñett ma nga sa kër saa yoo demee jot doo tànn naan xar mi ndax ma yóbbu lam du la yóbbu da nga jékki xool mu la ci gënal ne ko nit yóbbu sëriñ bi noonu lay doxe mooy saa yu ndigal dara ndax dañoo jubbiloon suñu bopp àddina ak alaxira kon loolu bu dee dëgg waruñu di seet dara ñun waaye bu ñu xasee bay xaar naan ñu àggal lii ñu bàyyi ba suba rek boobaa taalibe gi am la ci ndax taalibe moom murid amul bëgg amul lu ma عند الممات وغدا يوم الخيام بجاه غير من سبى الأبرار ووهب المرغوب والأغرار محمد طبيبنا الهمام المغفر الأمراض والأسقام وسلي عليه سلما وعلي ماسها بالكرماء مبلغ المزور بالدعاء وفي المريض باستسقاء يا من يروم دفع كل داء Thank you. ربنا وجائر